limametti point com comme ni ma koy defee semaine bu nekk suñu biir émission bi limametti show xam ngeen ne comme ni ma koy faral di waxee semaine bu nekk ak ndaanaan li may dalal tey nag ma dem ba dama demoon Mali xaw ma dama génn Mali xaw ma ko toyo daal en tout cas seen doom laa jël muy koo xam ne kenn dootu ko présenté buñu ne Kora ci Sénégal seen xel dina xam ci fin bi muy dem kon foofu laa dugg tey muy Soriba Koyaté nga xam ne moo fi wooyoon sëyal sëy bi euh, seet si sama rakk jooju lay Soriba am naa mbégte lool lool mi ngi ma waaw asalaamaaleykum day dama lay nuyu di waa Sénégal yëpp di nuyu ñu ñu jiitu di leen ñaanal yàlla yërëm leen yara rawatina sama yaay di ko ñaanal ñi tëdd ci hôpital yi ñi tëdd ci ñu nekk ci prison yi yàlla génne leen ñu bañ fa dellu di ko ñaanal kilifa diine yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ci barki Serigne Fallou yàlla na yàlla def jàmm Sénégal di ko ñaanal suma pàpp di ko ñaanal sama famille yëpp sama soxna ñëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm. Soriba Koyaate waa ci lu mu ne. <laughs> man damay jékki-jékki gis Soriba jékki-jékki dégg Soriba jékki-jékki Soriba raar lu xew lan la Soriba si lu mu ne album ak i single ba léegi xamuñu Soriba si lu mu nekk 2011 ak léegi yoon waa ngi bëgg a yàgg. waaw waaw Soriba mi ngi fi rek nekk ci liggéey bi di liggéey ku ne xam ne ni moom ku ma xam-xam ne moom musique maa ko bëggal sama bopp su ma xol la nekk nekk sama deret te franchement maa ngi ci maa ngi ci liggéey bi parce que li mu laaj dafa bëri mais àdduna moom temps ak espace ñu ngi télévision bi bu baax a baax di xool fu ñuy teg suñu tànk rek yàlla baax na mais Soriba man su ma koy fàttaliku 2011 la génnoon wayam wu rëy bi way wu rëy woowu sëyal sëy bi seet si ma mu defoon buzz ñëpp naa Soriba Soriba fan la Soriba jóge woon ba jékki-jékki rek génn noonu. waaw fii ci dëkk bi la jóge donc euh, ku ne xam ne dama jóge ci famille boo xam ni famille bu mag la suma turandoo nekkoon meilleur choriste du monde samay maam di def musique xalam ngoni kora ma mu judd ci yaru ci màgg ci ba sentir nii tey war naa war a mën a way. après ma bind benn morceau pour sama yaay sama famille déglu ko ne nice nañu encouragé ma ma def album xam ma bi ma génnee single bi Esperanza en 2011 affaire bi jàll ma tolloon ci def sëyal sëy bi fin 2012 génnewaale ci album bi xam nga loolu yàlla def ci jàmm quoi. ñu gis ne Soriba jamono yooyu nag comme niñ koy faral di waxee da nga doon def buzz fu ñu ëlbatiku Soriba Soriba Soriba ñu jékki-jékki nga am ndog pour yow lan moo waraloon ndog-ndog boobu Soriba ni mu génne gàllankoor feqatal wala wala affaire xale moo ko ci dugaloon. non non du du du yooyu nattu yàlla nattu yàlla bu ñëwee doo ne diw wala kii wala kii nattu yàlla moo ñëw ma accepté ko franchement te dafa maa gën a defar dafa defar lu bëri bëri bëri ci man te wax dëgg yàlla ku mu daloon bàyyi nga waaye yàlla dafa bëgg ko ko gëm gëm ni benn yàlla rek moo am man yàlla rek laa gëm gëw ma doomu aadama gëw ma kenn yàlla sunu borom mooy may bu ne waaw waaw mais incha allahu ci kàttanu yàlla liy xeeñ moom duma ci wax mais mi ngi ñëw. donc yow sori loolu danga nga jàpp ne nattu la nga nekk xale jékki-jékki am benn succès boo xamante ne ni nit ñi dañ ne ko àttanul woon ñàkk ko àttan nag moo waraloon dugal la ci yenn yi ba am problème yooyu nga fi amoon ba amoon ci arrestation bi. non du tout man ci lan laa dugg. <laughs> Ah, mais sori yow ñëw nekk xale euh, Espéranza sayal say bi ñëpp naa sori ba xale jigéen di topp ko xale bi def bës yow tam nga dugg si luqu njuur rek ñoom it tabarkàlla. waaw ba tey mun nañ ko waxee loolu waaye en tout cas ah ku ne xam na fa ma la féete ñu may waxal xam nañ suñu bopp ku ne xam na kat mooy sori ba te loolu mooy l'essentiel bi yàlla rek a xam te yàlla mi xam yàlla day leeral lépp. te boobaak léegi yaakaar naa ni yàgg na. complot la woon wala. non gars yi man comme li may wax rek tey bi may dugg ci musique ñu wax ko ñàkk wax wax ko te dee sori baa fi indi mode man maa ñëw fekk fi musique ma def apporter sama touche kullu kuy way wala kullu kuy musique tey boo jëlee mode defal ko ci musique war nga delloo sori baa njukkal te xale bu tuuti la. ah yaa ñoom ñoom Pin ñoom seen. bi dugg ci bi may dugg bi may ñëw ci musique bi 24 ans la am. sama 24 ans yu manqué laa am ma gën ci nekk xale bi ma ma yoon bi gis ni gars yi rek la def amuñu style du spectacle du dara ma ñëw man ma fi njëkk def armoire des artistes oto bu rafet indi mode ci musique osé yokk artistes yi fit tey kullu artiste wala jeune talent bu taxaw di way man maa la motiver samay tànk ngay jaar te pourtant am na ñu fi fële sañoo ma mag dama teel a feeñ mais ni ñu wax rek ndoor yoonu ndaw bu naree teel a sotti foog moom ndog-ndog waaye defaru nañ ci santaat ci yàlla bu baax a baax a baax te continuer suñu liggéey loolu moo moo ëpp solo. kon yow da ngay gis ne bi ngay ñëw noonu nekk xale ñëpp naa sori ba sori baa nga am xaalis ah dégg naa seen famille da ngeen a riche macha allah <laughs> am xaalis yor oto <laughs> tawarkaala xale jigéen nag topp ko xam nga sama rakk yeeg tawarkaala dafa coofee <laughs> dafa góore yu léegi sori dugg si ay lu ko njuur rek lu ko njuur rek yi fi xale. waaw mun nañ ko waxee loolu comme li gars yi di wax rek man li may wax rek mooy yoonu ndaw du gaaw te nattu yàlla moo koy teg doomu aadama wante daal li mu mën a wax bu mën a wax. mooy euh, gars yi ki mënul mënuñ ci yow dara waaye kuñ ku mën dinañ jëm ci yow. yow gars yi moom dégg naa léeg-léeg ñu laal la nag des fois léeg-léeg sóori xëy bët yi bañ ah madame maa ngi lay nuyu <laughs> léeg-léeg sóori xëy baat bi bañ <laughs> léeg-léeg sóori xëy tànki kii yow moom gars yi moom dégg naa wàcc ñu la benn yoon. léeg-léeg nga xëy dof. Hmm? waaw da ngay toog sa kër di dund loo xam ni parfois yooyu doo ko xam après sa waa gaale wala sa madame moo la koy expliquer. léeg nga xey def mu nen hmm? waaw ben ben ben quelque temps door a ñëwaat ci sa bop lool yëpp mbiru aduna la waaye tout se paye dans la vie nit mëno di def lu bon di am lu bon wi def lu bax lu bax da ngay am te dañ wax yalla dafa tracer ñaari yoon moy yoon li nangu lo wayon rek waaw koku dafa yéeme waaw moy yoon bu bax bi munoo wax wax wax wax wax wax wax foog yàlla ay mbiram foog nga jënd ko jënd bi mooy danga koy jaayante yoon bi day metti waaye boo xëyee rek mu sotti ragal sa bopp te xaar sa mujjantal mujj gu rafet moo jar a ñaan te ñëpp xam nañ musique bi musique bi fan lay mujjee. waaw si ñi koy téye nga bokk. du ay ñi koy téye man maa koy téye. bàyyi li nga <laughs> loolu laa gëm man loolu laa gëm. nday waaw. <laughs> noo du lu may def. xam nga nit li nga liggéey rek nga gëm te nit yàlla fa bëgg nit ku gëm boppam man ku luy waykat ci sama génération dama lay boot di way barki Serigne Fallou Sori Baye moom doon tuddoo sa génération pour yow ñan nga bokkal génération parce que yow 2011 ak léegi mu ngi bëgg a yàgg. dégg nga bokk gën a tuuti ci xale yi dama njëkk a feeñ mais boo xoolee sama samay mag a ngi fii te ñoo ma mujjee génn te gëm bopp boobu mi ngi fii ba léegi. tëjul liggéey liggey loo xam ne fu taxaw way duma ma wayandoog suma mom man may fatale yow Sori Ba bi ngay tambali di way presque bo ben xale nekati foon di way. wa bobu y avait que pap Diouf mo fi nekkone wali momu jitu ci musique boo ma njëkk way 4 ans après ma ñëw. ya man ma ci teggoon ok woon. donc avant y avait tamit ay chat sec ñu ngi fi woon. non man malay lay dégg boobu Thiat Seck mu ngi don way. Wah, chat sek mi nga don way ñom ñoma ñëk way yaay ñoma ñëk way parce que man fatali ko 2012 biñ lay invité radio bobu yaw la won ah wa bobu yaw la won ak ak ak Wally ba si tendance yi don am yëpp amon ay tendance yi don am yaw la won ak wali sek mhm. léegi nag bo gisee affaire bi ni mu ëlbatikoo ni ah legi mom, wali mom rom na la dem na yonam bu yag léegi xamna da ngay recommencer doon ak mom ñom bébé mohammed ak ñom Seck ba peut-être non lay démé recommencer <laughs> ak bébé parce que nit mom comme li ñu wax rek yalla ku nekk la tracer sa yoon mhm. Wally c'est un frère ama ah, juli maa ngi koy saluer de passage di nuyu soxnaam sama frère la te li muy def nawloo naa ko ci bu baax a baax wax dëgg yàlla nit ku baax la xol bi rafet fu ma gis daf may jox ñaari loxo jox ma cër bu baax xam nga yéene ma tamit kon tamit mënuma lu dul yéene ko ndax ki yëg moo la sonal mais concours yi ñu doon def entre yow ak Wally naa yéen ñaar yaa ko dàqoo woon moo la dàqoo ba seen fans yi sax rajo bi da nga naan xool instant boobu ku dugg les amis de Soriba ak ñoom mbiri Wally ñoom Nana Wally ñoom ñëpp sama gaay yooyu maa ngi leen nga doon gis tendance bi da doon def noonu sa yoon taxaw moom yoonam continuer dem bi nga ñëwaatee fekkaat ko ci biir nan nga koy dundee Wally mag la te comme li may wax rek nit ñu bañ a naa fekk ñu bañ a hypocrite ñu bañ a égoïste guerre warul am su suñu diggante parce que affaire tapet la ku nekk boo gëmee sa bopp gëm ni mën ngaa way man damaa gëm ni damay dem jàkkaarloog ñoom Chris Brown ñuy taxaw di way ma taxaw way daq leen way faj leen jël drapeau bi indil sama réew loolu laay liggéey loolu laa gëm ay ñoom Davido fekk leen seen dëkk faj leen mais pas jóg di xeex ak sama waa dëkk yooyu yëkkatiw ma. wala doo deg dégg mukk ci lu ñàkk fayda wala doo ma dégg ci genre yooyu noonu parce que sama esprit dépassé na loolu te li may liggéey dépassé na loolu comprendre nga damay sama na fi Youssou Ndour yam tey boo nekkee Europe ne Afrique Youssou Ndour la ñuy wax kon man tamit bëgg naa nekk Europe ñu ne monde bi ñu ne Soriba loolu laay ñaan yàlla te ci tànk yooyu laa laa jëm comprendre nga nit mënu ma ci mere parce que lu tax samay ambition laay wax mooy gëm ni parce que yàlla mën na ko boo ko gëmee yàlla mën na la yeggale fi ko Michael Jackson yeggoon parce que yàlla mooy maye moo may may Michael Jackson loolu noonu ci liggéeyam comprendre nga man tamit pourquoi pas ma liggéey ba mën a yegg foofu noonu yàlla rek xam kan lan lay lan la nit di doone ëllëg mais nit sañ ngaa wax li nga bëgg te sañ ngaa gis li nekk ci réew mi comprendre nga xam fi musique toll gis gars yi jeunes yi fan la fa ñuy wooyee comprendre nga xool fa ngay wooyee xool li ngay liggéey peser sa bopp xam ne da leen di boot di way <laughs> kon yow daal fi mu ne nii jàpp nga ne waykat Sénégal yi ñi nga bokkoon génération bi da nga leen di boot di way doo seen morom yaa ndax way kenn du ma ñeme naa taxaw ñëpp jël micro di way technique bu nekk parce que ñii day am lu ñuy gis nga dégaame ci musique wala euh, di way nekk ci gaam bi bokkul ça n'a rien voir ak li ñu naan division rythmique techniquement jeunes yu bëri xamuñu ko moo tax benn rythme la ñuy topp di woy xoolal sama parcours nga xool fi ma yegg si nga jël morceau yi ma way yëpp yëpp nañ dugg YouTube ñu xool morceau yi yooyu yëpp ndax benn am na ci bu nduroog sa morom barki démb maa ngi dégg suma papa euh, Bouba Ndour di ko wax te il a parfaitement raison ne ñëpp dernière génération ñëpp ñoo nduroo rythme yi ñuy waye da ngeen bu ne da ngeen ni parce ko ma ci. man du ma copier coller dama am sama touche bopp fan yii passé di Prince sama père ak euh, Alaaji Faye ñu ngi koy wax sama papa maa ngi koy nuyu de passage Mbaye Gueye fay di pap boo xam ni dama exemple la ci man DJ Prince boobu mu ne Soriba moo ko Alaaji Faye ñu ne euh, ak Jibi Jibi fay ñu ne Soriba li ñu neex ci moom mooy boo yëpp ndroo fu ñuy woyee waaye moom dafa am touche boppam man du woy nga sentir ci nit sama yëfu bopp laa am parce que loolu dama ko liggéey ba am sama touche bopp bu ma ñëwee ci kooraa da nga naan non non c'est impossible bu ma ñëwee ci rythme bu nekk reggae rab lépp laay def comprendre nga parce que néew ma dama complet ci musique mais maa ngi ciy jéem di sàkku xam-xam man bi may tëll fii 2011 2012 fekk na fi ñëpp rek su tey su benn benn nit benn doomu aadama moy tok di wax may may di wax wax ji di ma fekk ba fa sama kër mooy ku ñu naan Ibou Ndour nan tok nan boy bi dama ko bëgg jappalé parce que dafa fit bëgg na limi def ñëmé nako té te mi ngi ciy góorgóorlu te loolu mosuñu jàkkaarloo lu dul anniversaire u Pape Diouf euh, ba success comprends nga mu tok ne ma da nga mën way mu tok ne ma ci yoon té nax parce que ku xam musique la. tay li defaru ci musique do ci génnee do ci génnee Ibou Ndour. mais lan moo tax liggéeyuñu ak yow parce que label bobu euh label Prince A dafa nek label bo xamante machallah euh yalla yàlla may na loo xamante buñ la jappalé rek war nga mëna dem fu sori lan motax tax ak waa Prince A ba léegi. yalla dogalu ko bu ko dogaloon. demo vers ñom yalla dogalu ko. mais est-ce que est-ce que tey tey relation bi bu nice buñ ci am moy luñu xewlé wala ñu soxla ma wala Euh, ma war ko def wala ma soxla leen dama leen di woo ne leen lii laa soxla ñu jàppale ma ci mais côté promotion côté lépp ñoom tamit lu luñ ma woo tamit damay dem parce que may kilifa lañu tey benn Ngoné nduur suma yaay la man maa ko dénk suma bopp parce que doomam yëpp ku yaate lañ sant te it sama cousin wu papa la doon sëyal yàlla na ko yàlla yërëm comprendre kooku suma yaay la kon c'est la famille comprendre nga mais lu yàlla tuddul tudd ko bu ko tuddoon day am mënuma ci dara kenn munu ci dara benn mbindeef mënu ci dara voilà. mais pour yàlla tudd ko Soriba ñoom ñooy ñëw ci yow wala yow nga dem ci ñoom te comme yow yaa a soxla yow yaa war a dem envers ñoom est-ce que def nga démarche yooyu aussi. bis bu ma sooboon ma dem envers ñoom incha bu soobee. damay dem damay damay damay damay dem envers ñoom incha allah bu neexee yàlla. kon doon wax lan ngay tàggatoo lan ngay wax ak projet yi nga ne yaa ngi ci. waaw lu neuf ku ne xam na ni ñu ngi dem Saraba incha allahu comme ni ñu wax rek dar fa def doom xam ma invité ci nag suma rak di Diop wax dëgg yàlla moom it euh, ku ma yëg la yëg na ma parce que dafa nekk xale ñu bokk koñ bu ñu dëkk chaque jour day ñëw grand mu ne ko waaw ah grand toog bokk ñu way génneel kooraa teg ataaya ma génnee kooraa bi dolli ko expérience première soirée am première répétition yi maa ñëw toog naa ko nañ defee nii nañ defee nii ñëw toog xam rek boo baaxee. soirée bi maa ngi toog ci ginnaaw DJ bi naan ko son bi nii nii nii te loolu dafa ma neex quoi. xam mu daan ñëw suma soirée nag pentola xam nga di way di bëf si ma naan public bi xale bi kenn daa ko way. bàyyi leen ko xel comprendre nga muy ku baax yëg ma daa ma démb démb rek wax dëgg yàlla yëkk na téléphone am ah, keroog day la nga woy sama soirée dafa neex dinaa la envoyé enregistrement bi grand dama bëgg dama lay bëggee xam dafa neex comprendre tey moo tax am na bëgg boobu noonu rek temps boobu mu daan ñëw suma kër rek moo tax man tey léeg-léeg ma toog ah, sama rakk ji fan lay tëgg xaar ñu ne ma fii lay tëgg ma ñëw bett ko wan ne ko yëg bi nga ma yëg ak nang ma daan fekk see tey noonu laa lay fekk see pour ñaanal la comprendre nga parce que nit da ngay sàkku barke xam démb mu ne ma ah grand damaa namm sa soirée ma ne ko day le neuf maa ngi dem Saaraba waaye dinaa la def sama invité d'honneur. comprend nga parce que. mel ni yéen ndaw yi da ngeen war a ànd daal bokk ndey bokk baay dañu booloo tey tar ba mbay sama xarit. suma suma teeleen ko tee ah, naa ko xaw ma tarba El Hadj Keita tamit génne affaire bu neex comprendre nga borom Medina mooy euh, nuñ koy wax. nuñ koy wax dama bëgg ngeen def association des des kii nu des jeunes talents du Sénégal. nga ah benn Momo Dieng Paama comprendre nga ah, voilà comprendre nga sunu sœur Aïda Samba ah, xama ay ñoom Queen Biz ñoo tamit <laughs> gars yi. seetaan seen <laughs> non gars yi parce que ñun ñoo far quoi xam ñun ñëpp voilà ñun ñëpp mooy loolu quoi mm-hmm. li ñu ñaan mooy xam nga ñun yàlla wis ndox bu sedd ci diggante yëpp. Mm-hmm. xam nga ci darajay Serigne Fallou bi ñu yaakaar mm-hmm. ñu ngi jëm ci màggal di ñaan ñu dem ci ak jàmm ñëw ci ak jàmm te ji ñaanal sunu mag yi tamit xam ñu bañ leen topp xam ñu ñaanal leen. yow yàlla yàlla yàlla def seen xel ñuy gesu seen rakk <laughs> comprendre nga waaw waaw ñu bàyyi léegi léegi léegi nga gis nga gis koo ci dem ba ba yotta ki yéra naan ko waa gara jàppale ma may ma loxo ba yëg mu ne la bàyyi ma waaye <laughs> waaye ma sa loxo waaye nga daan nga daanuwaat <laughs> léegi da ngay sa toog ne ko ah, grand bii nii bu ma yéegee ci kaw naa ko bolon loo koy mujjee wax aja ko doon ñoo ah. la kon yéen ñi féete kaw jàppale ñi féete suuf bu ko defee ñi fee de suuf bu ñu yéegee ñoom itam mën a jàppale ñu seen loxo parce que àdduna moom jàppal ma jàpp la mm. ku fi mën ku ne rek kon damay bég ci staffu euh, sama xarit bi de sama rakk ji nga xam ne tabaarkàlla macha allah itam dafa nekk xale boo xam bu yaru la ah, ah tabaarkàlla dafa am koo gërëm. Ah. kon gërëm. ah tamit bala maa voilà damaa bëgg nag. xam ni bis bi mm-hmm. ki may njëkk a gërëm. tey la neuf damay sargal seex Ba. Cheikh Ba bu Medina. sunu médecin nga xam ne ñun amuñ lu dul moom. moom laay sargal ci bis bi moom moo waral bis bi parce que Cheikh baax. léegi da ngay politique. non pare ne. Cheikh balaa pare ne. <laughs> kon du question lan. du question comment euh, parce que. man man mosu billaay télé la wax mosu yëkkati ñaar dërëm jox mais comme li may wax rek. te bu jëlee jeune dinaa jàppale leen yëkkati ay alal di leen jox pour ñu liggéey kan la ko defal. guy ga deex non déggoo ma de yëg na ni moom laay ah, sargal comprendre nga su ma ñoom <laughs> su ma ñoom papa Madiagne ah. comprendre nga nekk ci ginnaawam ñoom Seynabou Oumou Sow comprendre nga ñun ñëpp ñu taxaw tey pour delloo ko njukkal sargal ko du ma mun dul rek di ñaanal Cheikh ba yàlla may ko mu yeggaleek jàmm parce que ki yàlla mooy li may wax ki yàlla dénk dara mu ciy def lu baax kooku dañ koy ñaanal te di ko delloo njukkal te am reconnaissance su comprendre nga defal kon Cheikh ba ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko mu yeggalee ak sagoom te dara bu ko gàllankoor di gërëm suma staff popis Balde ba ci suuf ñoom prési dafa Ndiaye comprendre nga gaa yëpp ku lim ju di gërëm ñoom Mansour Thiam yaa ngi dégg Lamp Abdou Mankuba comprendre nga di gërëm soxna si ñëpp comprendre nga voilà su ma benn yaay nag boo xam ne dafa ma mere. nga naan kat jattu saw. kat yeeru daa bëri histoire maa ngi koy nuyu au passage di nuyu suma wàllu yaay ñëpp les de sori baa nga maa ngi bëggee ñëpp waa waa baraada bi nag. waaw nga may ñu benn nag avant waa baraada bi nag. waaw ku ne xam ne ma ko waa Fadia parcelle Géejawaay pikin baraade bi yëpp maa ngi leen di nuyu sama gars yi ñoom le père ci kaw ba suuf comprendre nga ñoom njool Salif gars yëpp maa ngi leen di béggee Papa Ndaw xam ma béggee naa leen bu baax xam nga garga sa mba garga de mbër maa ngi koy siyaar ah. di ñaanal ñëpp waaw. loo bëgg ma may la. may ñu benn acapella bu dal rek. loo bëgg ma may la. non yow loo def neex nañu. non yow waxal rek lan nga bëgg ma may la. bu la neexee nga def yaay bu la neexee nga def mbëggeel yow daal loo xoolal. da bëgg a jooy. waa ñun ñun lu ma métti tàmm nañuy jooy ah. jullee ma wara jàpp dem jàkkaay toog fa ñaanal sama yaay yàlla yërëm ko mën na ko jullee ma war jàpp dem jàkkaay toog fa ñaanal sama yaay yàlla yërëm ko mën na ko wooy yàlla yërëm ko mën na ko ndey petaaw yee yaay dee na yàlla yërëm ko mën na ko ndey dama feebaroon benn bés jékki-jékki fitne rës yaram ndaw ma jékki-jékki fitne ras sama yaram ndaw ma xam ni am na lu dal mu mel ni am na jëmm ju jóge ci man xawma ko ci la dem laaj ko suma baay delu laaj ko suma baay mu sëgg jooy ma jaaxle lool ma laaj ko man suma maam am mu sëgg jooy ma jaaxle loolu yaay je me suis dit pourquoi yee c'est dans xam naa bu jooy fajoon na kaar man dootuma dese rongoñ day petaaw bu jooy fajoon na kaar man sori ba dootuma dese rongoñ ndax naa jooy teen pan mbaa bërigo jox leen ñu jox ma sama ci lan nga nekk yaay yaay booy ci lan nga nekk yaay yow yaay ci lëndëm wala leer yaay booy ci jant wala weer wi yaay booy ci naaj bi wala ci kër gi yaay yaay booy yaa ah ah ah yow yàlla jël nga yaay bàyyi maa ci dunu yaa wét jooy na jooy na la yaay ndey julle ma wara jàpp dem jàkkama toog fa ñaan sama yaay yàlla yërëm ko mën macha allah yal na yàlla oyofal suuf ci kaw yaayam joojul ak mboolem yaay bu fa nekk ak bu ñuy fay fekk ji di ñaanal ñu dem ñëpp yàlla na suuf oyof ci kawam Amadou Talla ñuy wax émission bi jeex na <laughs> ndar maa ngi ko jaajëf ba semaine biy ñëw.